man la soxna Kumba Gassama di Seyda di yarkat ci daaray Alhuda wal Furqaan fii ci rue 1 angle 16 Médina Seyda te dañ la seet si woon ñun waa Mouslih pour waxtaan ak yow ci 8 mars nan nga gisee bés bi nga xam ne àdduna wërngal képp ñëpp dañ ko sargalee jigéen ah, man ni ma ko gisee mooy ne bës bii nga xam ne dañ ko jël ne dañ ko jagleel jigéen man ci sama gisin mooy ne dafa lu toll ni trois cent soixante cinq jours nga jël si benn bés rek nga ne moom nga ko nga koy sargalee jigéen man pour man loolu dafa gàtt dafa gàtt dafa tuuti euh, li ñuy màggalee jigéen ñoom màggaluñ ko mais dañ koy gën a doye di ko gën a tuuti parce que jigéen moom mooy societé moom mooy société ndax góor ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoo ñooy bàkku nekk ci biti naan yeneen bés yépp ñoom ñoo ko moom te jigéen moom moo moom moom moo leen ëmb jur leen yar leen taxaw leen ba ñu nekk ba ñu nekk ay responsable yoo xam ne dañuy bàkkoo bés yooyu yépp léegi ñoom ñu ëlbatiku jël benn bés rek ne jigéen lañ ko sar lañ koy sargalee pour man loolu injuste la parce que ki nga xam ne moo tax yow nga nekk boo ko bëggee jox benn fan kase loolu du atte bu bu jub man yaakaar naa ne at at bi yépp walla dundu du dundu nit ki dun dundu dun dundul wala pour man jigéen moom mooy dund moom mooy dund ndax boo mënee taxaw tey ginnaaw yàlla jigéen a tax kon jigéen boobu dund yëpp lañ ko war a sargalee mais du benn fan kese. léegi ñooñu nga xam ne ñoo jagleel jigéen benn bés est-ce que sax ñoom jox nañu jigéen gëdd. déedéet joxuñu jigéen gëddam joxuñu jigéen gëddam. lu tax joxuñu ko gëdd. Ah, ndax ñoom nee nañu ñoom ñoo moom yeneen bés yëpp te ginnaaw yàlla. jigéen a tax yéen ngeen nekk li ngeen doon tey ngeen bëgg ne benn fan rek ngeen di jagleel jigéen kon bu dee jigéen de benn fan ngeen ko jox yéen yaakaar naa genn wàll bës sax doo leen ko am genn wàll bës doo leen ko am ndax yaakaar naa li ëpp solo moom la ñuy gën a jox cër li ci tegu di ci war ci tegu mais li ëpp solo nga jox ko lu néew nga ne yow yaa ëpp solo te ki ëpp solo moom moo la moom moo la yoroon kon yaakaar naa àtte boobu jubul àtte boobu jubul léegi nag euh, mm. est-ce que gis nga ne ñoom xam nañ seen bopp dëgg-dëgg. Hmm, déedéet jigéenu jullit am ñu si xam seen bopp am na si mais am na si ñu ñu bëri ñoo xam ne dañoo sànku xamuñu seen bopp ndax bu ñu xamoon dëgg-dëgg seen bopp xam seen diine lim leen nim leen teralee kon du ñu wër teraanga feneen mais dañuy dellu si seeni aada ak seeni cosaan ak seen diine ngir ñu am fa teddaange mais du ñu wër si ñi nga xam ne chaque jour dañuy wër pour di leen delloo ginnaaw di leen wàccee di leen nangu seen teraanga di leen nangu seen valeur kon du ñu utee foofu teraanga teraanga nekkul foofu. léegi yow fekkee am na ay jigéen ñu lay déglu doon ñoo xam ne dañuy sol lu gàtt wala di yokk seen bopp yi wala di changer seen teint yi lan nga leen di conseiller. ah li may conseiller sam bopp rek di leen conseiller mooy ne ñu delluwaat ci suñu cosaan. ñu delluwaat ci suñu cosaan delluwaat ci suñu diine ndax ndax de ndaxte de nit ki ni nga ni nga men danga ci war a fier xam ne yàlla nii la la sàkkee lii moo gën ci yow yàlla ni la la sàkkee kon nga fier ci li nga doon parce que yow li ngay bëgg a doon comme ñoom doo ko mës a doon te ñoom duñ la mës a boole seen bopp liñ naan ànd boo dem fekk fa borom ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fa borom yow noonu ngay noonu ngay mujj men doo bokk ci ñi bokk ci ñële balaa caat nga xam li nga li nga doon xam ki nga doon xam fi nga jóge nga dellu si say mbokk moo gën ngay bokk bokkalu foo xam ne doo fa mës a bokk doo fa mës a bokk bu ñu wootewee seeni biir la yow doo fa mës a bokk ñiy sol nag lu gàtt di yokk seeni mèche di changer seeni der nañu xam ne loolu yàlla gërëmu ko yenent bi gërëmu ko te loolu wàccee sa personnalité la wàccee sa personnalité nit sa dignité mu ngi ci li nga doon nga fier ci ak noo mënta mel nga xam ne yàlla nii la ma sàkkee nga yëkkati sa bopp ci kaw nga siggi xool ñëpp yaakaar naa ci la la ñëpp di naw mais boo wàccewee sa bopp nit ñi dañ lay ñëw di la joggi rombale dem seen dem seen yoon da yaakaar ne yow li ngay def noonu ngay amee valeur mais noonu ngay gën a ñàkkee valeur ci kanamu ñëpp. looy ah, xanaa rek di wax ne nañu gën a góor góorgóorlu gën a góor góorgóorlu gën a. am Pastef xam ne benn fan moom dafa néew torop man de duma nangu ku may jox benn fan benn fan moom dafa néew torop torop torop torop man dama naan dundu laa dundu laa ndax képp ku mënta dund ci jigéen nga nga jaar ci jigéen nga jaar kon ñu xamaat suñu bopp xam suñu valeur xam ne képp koo xam ne yaa ngi fëgg sa dënn ci biti yow jigéen yaa ko defar kon nga xam sa bopp xam fooy teg sa tànk xam fi nga jóge gën a mën a réaliser lu bari la la la la la la la la la la la la la la la